Mengi nonou, sou man kolobani.

ngi noonu nous sommes à Colobane le président Ousmane Sonko ñëwoon saafonte fii ak ñenn ñi nga xamante ne ay wëlëreem lañ di ay commerçant mi ngi noonu di génn mi ngi noonu di génn mi ngi di génn mi ngi di génn président Ousmane Sonko président mi ngi président Ousmane Sonko ak xale yi mi <laughs> ngi saafonte ay xaritam mi ngi noonu président Ousmane Sonko à Colobane <laughs> président Ousmane Sonko à Colobane ñëwoon saafonte ak ñenn ci ñoo xamante ni ay wëllëreem lañ mu yàgg ak ñoom ñuy ay commerçant ñëw ñu ñaan ko comme tay demone na sikap ñu ne ko na fi jaar rek mu ak ñom danaka lolu moy objet bi njëkkee na sante yalla boutique di wolare ñëwaat fi ni nga xamante marchand ambulant yi fi la nekk mu bari fi ay wolare ak ay soppe bu baaxa baax mais fii moom évoluer fi dina xaw a métti avancer fi dina xaw a métti donte ne wàcc na oto yi parce que mbedd yi dafa xat mais dina métti lool lool lool lool lool mu progresser fii nga xamante ni moom moo di Colobane mi ngi noonu nit ñi génn nañ. suñu mbokk commerçant yi ay jeunes mi ngi nonu comme ni ma len ko doon waxee président mi ngi jëm ci boutique sante yalla boutique ñuy ay wëllëreem di ay xaritam ñom la ñëwoon seet ci fi waye moy président wu ambulant yi moy président wu sénégalais yi xalé yi genn xalé yi genn mi ngi nonu mi ngi nonu mi ngi <laughs> Ça sera très difficile ça sera très difficile santé ya la boutique ngi nonou. président ñëwoon parce que wala avez waye itam am occasion xol na la ñuy liggéeyee jël fii li nga modi quelques articles président shopping la ñëw def ou waaw nonou la mais le shopping du président Ousmane Sonko. le shopping du président Ousmane Sonko mi ngi koy defee Colobane comme sénégalais bokk ak sénégalais yëpp mi ngi noonu dugg Colobane sant yàlla boutique xale yi génn xool leen lii ci nit nit ñaa ngi mabu di ñëw mënuñu dem mënuñu dem on est à ci kaw terrasse yi xoolal ma lii <laughs> président Ousmane Sonko ñëwoon tey Colobane doxantu ñëwoon Colobane def si quelques achats seet si ay nawleem ay soppeem ndax bëri nañ fi lool bëri nañ fi lool mu di jeunes waaw jeunes yaa ngi ni ñëw envahir boutique bi bi mu doon defee ay achats mi ngi noonu mi ngi noonu xool ni nit ñi di màpp di ñëw on est le plus grand marché du Sénégal le marché le plus populaire mythique Colobane. Le président Ousmane Sonko est venu faire quelques achats, mais aussi en profiter pour prendre des nouvelles de quelques de ses amis de longue date, mais aussi rencontrer cette jeunesse. fu mu mu événement fu mu événement fu mu événement Lolo moo tax jeunes yi ñëw topp ko ci lu bëri moo tax Koloban a ngi di maab di jëm sante yalla boutique nit ñang ci terrasse yi président mi ngi bir boutique bi di def euh, ses achats jeunes yi rassemblé wu ñew soko ko soko soo cette hymne hymne de la jeunesse sénégalaise envers le président Ousmane Sonko ici à Koloban ici à Koloban Il est presque 18h, sinon 18h passées de quelques minutes. Le président Ousmane Sonko est de sortie pour faire quelques achats ici dans le marché de Koloban. Et les jeunes sont sortis, ils sont là, ils sont là. Sonko Tibuntu, ci buntu boutique alors que président Ousmane Sonko Mingi boutique bi di def ça c'est le phénomène c'est l'homme du peuple qui fait ses achats dans le peuple Fille la ñëw tey quelques marchands ambulants Nous avons échangé avec nous. actuellement boutique on attend un peu mi ngi noonu di leen fàttali ñoo ngi Colobane président Ousmane Sonko mi ngi ci biir boutique bi sant yàlla boutique di def ay achats am et vraiment askan bee génn marchand yee génn Colobane a génn ñëw ci bunt bi di ko xaar ça c'est inédit c'est une grande première comme tout ce que touche le président Ousmane Sonko Colobane a Kalau a ngi nii nit ñaa ngi màbb di ñëw nit ñaa ci terrasse yi fii moom fi dina métti lol dina métti lol président Ousmane Sonko mi ngi ci biir boutique bi di def ay kalau Colobane génn teertu ko Colobane génn mi ngi noonu boo xoolee photo yi nga xam ni yii dañ koo takkoon ci ay place sama mbokk dañuy rek buddi ak photo bi photo yi boo xaaree nga xam ni dañ ko accroché woon nga xamante ne yii moo doon orné seen place yi seen mbëggeel ak li ñu sopp président Ousmane Sonko mi ngi nii mi ngi nii exceptionnel exceptionnel ex mi ngi noonu di génn pare na pare na def ay achawam pare na def ay achawam mi ngi noonu di génn <laughs> la boutique est assaillie boutique bi boutique bi boutique bi nous... <laughs> ça sera difficile de sortir d'ici mais mini nonou président Ousmane Sonko buñ ko mi rejoindre son véhicule Voilà rejoindre son véhicule Allahu akbar Limostam. Limostam. on est à Koloban, nyongi Koloban. Colobane a ngi nii génn président rejoindre na otoom président rejoindre na otoom dina dina metti dina metti lool tey pour ñu génn fii mi ngi noonu ñoom ñoo wax de Colobane biir Colobane Ousmane Sonko waay boy da ngay yëg nii da ngay yëg xoolal da ngay yëg nii nga toog ma mën a am appui ci yow non du ma am hauteur thank you, boo toogee doo am li nga bëgg c'est pas possible. taxawal taxawal ci yow laay jafandu taxawal taxawal taxawal taxawal nii. Koloban, Koloban yang ini. Koloban yang ini. Eksepsional. Eksepsional. Nyongi Koloban, Presiden Osman Sonko dokon dokon tu sifi def si ay asham, am nonu mooy joxe possibilité pour moo nekk ci kanamam. non bu wàccee du أجل Coloban en évolution, Le président Ousmane Sonko à Coloban. <laughs> c'était pour nous def ay achat ci wàllum borom à la boutique. et ça s'est transformé en une marée humaine. Minginonu, nous, nous ñoo Coloban. Coloban. Nous président Nena. mi ngi ñaan xale yi nañ ko may mu ñibbi mi ngi ñaan xale nañ ko may parce que aussi sorti la woon noonu rek sorti la woon noonu rek waaye mi ngi noonu Colobane la merci Colobane merci Colobane merci Colobane Ousmane Sonko moo ñëwoon def si quelques achats Fini nga xamanteni mom modi koloban di Colobane auprès koo xamante ne la borom sante yalla boutique waye itam jeune ambulant yeb yi fi nek président taxaw saafonte ak ñom parce que parce que ce sont les gens du peuple maga ngi noonu di joy maga ngi di joy maga ngi di joy maga ngi di joy ngi nonu di joy di dem ndax président Ousmane Sonko mi Sokolale, Sokolale, dîner ko laalee de la jeunesse du Sénégal envers le président Ousmane Sonko hymne non nous il hymne baa non nous hymne baa nonu non nous est prêt est prêt le président Ousmane Sonko ici à Koloban. ñëwoon def si ay course ci marché Colobane marché bu mag bi waaye ñu xam fii ay xale yuy daan seen doole mu ñëw saafonteeg ñoom lii yëpp génn ci donte ne daa ñëwoon def si ay course rek rapidement waaye lii la yàlla dogal li mu waxoon lieutenant gendarmerie ba ca Joal su ma la ñëwee sa kër seet si la say mbokk génn askan bi génn loolu mooy dëgg Colobane la Colobane la le président Ousmane Sonko ici à Koloban, nous en attendant Mbake, en attendant ça sera l'apothéose c'est promis nous on accélère un peu parce que la sécurité la sécurité veut sortir de cette zone parce que comme nous l'avons dit les Indiens indi de ñëw na def na ay course am yëpp am na ci mi ngi waxtaan ak xale yi pour ñu yem foofu ci gunge bi ñu may ko mu ñibbi waaye gis ngeen nit ñi ni ñuy dawee di ñëw nit ñaa ngi daw di ñëw fii fii président dina jafe lool génn fii maa ngi ko doon waxtu tout à mi ngi naxante xale yi fële au fond expliquer leen nañ ko bàyyi mu dem gunge bi doy na sëkk waaye est-ce le faire est-ce le faire waaw président mi ngi noonu góor gaa ngi noonu moo fi tuur ay xewal léegi léegi ci mbëggeel gi mu am ci Ousmane Sonko nee na liñ ko teg dafa metti ci doomu Adama da ko gis rek xol bi fees xol bi tooy mu jooy ndaxte jëmm ji ku jàkkaarloog moom xam ni nitu neen la ku jàkkaarloog moom nga xam ni vrai sénégalais la ku jàkkaarloog moom nga xam ni lu ñuy naan muñ tey mën nañ changé tur bi sax tuddee ko Ousmane Sonko lu nekk dégg na ko lu nekk ñu ngi ko fexeel waaye ni mu ko waxee rek ginnaaw yàlla askanu Sénégal laa dénk sama bopp mu dénk ko ñaar ñoo xamante ne duñu wor yalla suñu borom xamul wor té du wor yalla suñu borom mom rek mom moy fay li nga xamanteni ni di yéene te gi mu am ci Sénégal yalla bolé nako ak askanu Sénégal yalla bolé nako ak jeunesse su Sénégal ñu bëgg ko lol lol lol ba fi mu ñu won ko ko Ousmane Sonko le phénomène sénégalais l'espoir du peuple africain l'homme du souverainisme c'est pas des vains dafa di loo xamante ne ñun ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ ko président Ousmane Sonko tey fii ci Colobane génnoon rek seet si un commerçant pour def ay achat am fii ci Colobane di marché wu Sénégal ndax Sénégal yëpp a daje moo tax it bi ñu gisee ni mi ngi ñëw ñoom ñëpp ñu daw ñëw sargal ko mi ngi noonu ñu ngi koy may ay kisi tissu yaa ngi noonu ndeysaan xale ñu ngi ko koy may lii musta am On n'est pas en campagne électorale. On n'est pas en campagne électorale. Ousmane Sonko à Colobane génn nañ marché Colobane ci biir quartier bi Waye li la yalla dogal ñoo accélérer pour boy yi mëna a fi gu ngébi. Waye ko rek fi dina jafe génn lool président dina jafé génn lool président mi ngi nit ñangi seen kaw le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko à Koloban waaw sécurité bi ak côté, yi ñi ngi accélérer pour ñu mëna génn rapidement parce que ce n'était pas prévu n'était pas prévu le président Ousmane Sonko mais ngi noonu on va accélérer un peu pour mëna a fi nga xamanteni mo di Colobane mais nit ñangi li daw di ñew waaw nit ñangi daw di ñew li mësta am li mësta am ñooñu noonu ci kanam la sécurité dégage très rapidement pour que ñu mëna progresser génn fi rapidement mais nima ko waxé rek du yomb mayu yalla la nit ñangi seen kaw terrasse yi nit ñangi di wax Sonko li ku dara ku dara la sécurité est en train de baliser pour que l'autorité, le teel président Ousmane Sonko minginonu. Wow, noonu waaw fii du yomb Koloban, du yomb ndax quartier ou bañkat Koloban, quartier ou bañkat la Ousmane Sonko l'homme de la résistance est là ñoom ñëppay daw génn bàyyi seen kër yi du yomb président génn du yomb le quartier de la résistance sénégalaise mi ngi le président Ousmane Sonko askan baa ngi daw ni ma leen ko du yomb c'est une réalité Ousmane Sonko est une réalité sénégalaise c'est le phénomène sénégalais lui et le peuple sénégalais c'est un pacte c'est celui qui a été réitéré à Kermassar avec le pacte de Kermassar. Il reste celui de Maquet qui, sûrement et certainement, sera dans les annales de l'histoire du Sénégal. Ousmane Sonko, ici à Koloban, Dilenan, rythme bi parce que la sécurité veut sortir d'ici la sécurité ne fait parce qu'il itam prévoir où nous génn bi le mais président Ousmane Sonko il mu donc il faut que rapidement qu'on puisse sortir d'ici Mais Ousmane Sonko exceptionnel exceptionnel Ousmane Sonko la sécurité essaie d'avancer rapidement parce que ne fait pas sinon on risque d'être débordé par le nombre de personnes qui assaillir le convoi di waaw nit ñaa ngi ne di ñëw alors que ñun dañoo war a noonu mi noonu président Ousmane Sonko mi ngi demandé bi gën a gaaw waaw mujj na dugg ci otoom comme ñu teel a dégager fii yëpp on est là ñoo ngi Colobane la sécurité aca ñu dem

et euh, boutique comme ni ngeen ko à travers ce live les gens sont sortis nombreux nombreux du ko mi ngi il faut que nous accélérer ah ah ah oui ah oui ah ah ngi noonu on essaie ñu génn fii waaw fii moom mi ngi noonu ñoo ngi ne woon Colobane ñu jéem a dugg fi nga xamante ne jéem a ñibbi jéem xale yaa ngi noonu topp ko di daw <laughs> xale yaa topp ko di daw <laughs> ça Don't get waajal ngi noonu euh, certainement on va arrêter euh, live parce que plus live bi di gën dem euh, nit ñi di ko seetaan di gën a génn <laughs> donc. on va essayer de ralentir un peu ah, live bi tuuti parce que ñu ngi ci yoon dañoo bëgg ñibbi et comme président ni ko waxee tout à l'heure mi ngi saafonte ak koo xamante ne da koo bëgg waaw da koo bëgg waaw mi ngi koy ñaanal mi ngi noonu ci biir oto bi waaw mi ngi noonu marchand ambulant waaw mi ngi noonu di jaay ay FM yàlla baax na yàlla baax na góor day daan doole góor day daan doole mingi ngi yalla may ko mu échanger ak le président Ousmane Sonko mingi ngi ambulance. ambulant la ambulant la ñu dem donc on va arrêter le live ci kanam on va arrêter le live parce que plus nit ñi di gëna gis live bi plus nit ñi di gëna génn et bu ko défé ak euh, ñëpp xam nañ ni axe bi ñu jël bi en terme d'embouteillage dafa yom lool dafa yom lool donc on va essayer d'arrêter le live ba ci kanam ah pour ñu jéem a ñu jéem a reprendre ah bu ma arrêté bu ma arrêté waaye itam dafa xaw a gaa yaa ngi noonu gaa yaa ngi noonu on va essayer d'accélérer pour ñu dem on va on va essayer oui ñi ñuy suivre yëpp dëgg la ñoo bokk lépp waaye Nous nous demandons, nous on va essayer quand même nous dellu si ci on va essayer ñu nous si ci ah. donc euh, euh, comme pour l'instant on va essayer on va essayer de regagner un peu la zone de base ah euh, tout à l'heure tout à l'heure inchallah on fera le maximum on fera le maximum pour vous faire vivre li nga xamante ni di le sortie No.